Nous sommes motivés li ñu motiver depuis des années nous, avons mouvement di ci liggéey di xeex guddi ak bëccëg lii lañ doon xaar nous bi mu jot ñu dem yóbbu suñu caution ñëw déposer suñu candidature sans Tëngéej incha à partir du 23 janvier 2022 parce que nous, nous dëkk ci les ci les premières communes du Sénégal Tëngéej à part Dakar ci a un budget la bokk mais amul un projet gi qui chantier à Rufisque bu millions amul kon ça veut dire que ni ñi candidats ni les candidats sortants ñi bëgg a mairie bi nga ni ñi def nañ deux defuñu fi dara ñii def nañ defuñu fi dara war nañu rus du dugg ci kër benn Rufisque di leen parce que si vous avez Tëngéej am na ay quartiers yoo xam ne da toog sept mois oto du fa dugg ñun soo gisee ñun politique du warul doon suñu métier ay artistes lañ mënoon naa toog sama ruq di def mais damay gis ay jëw ay nit naan waaw maam góor musique la xam xanaa xamuloo nekk musicien moo gën a metti moo gën a naxaree doon doon musicien moo gën a naxaree doon ministre ministre da ngay xëy rek président toog jël fooyam bind ne def na la ministre mais musique tey boo nekkee artiste da ngay bind créer créateur ñaari nit lañ koy woowee ñaar rek lañ koy woowee ci adina yalla ak artiste kon un artiste bu djengo am ay conseils yu bax wut ay nit yu bax ñu tok ci wétam mo am un bon projet mun na defar dëkkam. may talal nak suma loxo les quoi bu kenn japp ñi leen di wax naa leen non mam Gor c'est un artiste wala c'est un xam nga commencement bi dañ doon wax Mame Gor day sóob am ñu ko doon wax comme esprit jeune tay ji confirmer na ni dina dem élection dina leen gagner té dina changer Rufisque.